si li nga xamante ne moo jëm si loi bi mais may mun a ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale keroog suñ si su amendement duggoon ne yokk nañ si cinq ans kam mu si mën dara kan mu si mën dara kenn mënu si dara conseil constitutionnel non maanaam boog loolu suñ ko bàyyee suñ ko bàyyee mu jàll mooy clause intangible boobu ñu xeex bu dugal président Macky Sall moo ko si dugal ne l'oubliez pas en 2016 moom moo ne léegi du ñu laalati mbirum mandat parce que mandat y a eu des morts man j'étais emprisonné pour mandat mandat dafa am histoire dans ce pays là moo man bokk naa si pré ñoo xamante dañu félicité président Macky Sall bu waxee ne deful troisième mandat parce que nee naa entre muy déposé ak entre ñu joxe verdict lu ne mën na fi am donc mandat c'est un problème c'est un, une question qui a une histoire dans ce pays nan la ñuy def pour mën a régler cette histoire dañ ne désormais non seulement on va légiférer pour ñun mais même pour la postérité on va en faire une clause d'éternité c'est vrai que une clause d'éternité peut-être mën nga ko bind après bon loolu beneen bref beneen débat la mais en tout cas kenn waru ko laal ñoom quand ils sont venus ñu xam ne ne lii da koy toucher clause d'éternité ils n'ont pas touché l'article 27 ils n'ont pas touché l'article 103 te pourtant su dee da laaj dérogation sur la durée mais munoo bàyyi article 27 parce que article 27 dafa ne le mandat du président de la république est de 5 ans waxul 5 ans 10 mois donc dama laaj foofu dérogation il ne voulait pas toucher à ça parce que dañ jàpp ne suñu toucher foofu dañ leen di wax ne ne laal ngeen une clause intangible alors ko fàtte nañ ne délai bu nekk ci biir article 31 justement c'est pour mettre la fourchette pour wane ban moment la ñuy def élection yi donc jàpp naa ne ne loolu il faut que ñu xam ne dans ce processus là ñu ngi si tuddi ñëpp c'est vrai il y mais initiative yëpp ça a par le pouvoir ça a par le président Macky Sall à travers majorité au niveau de l'Assemblée nationale mais ça a été accompagné ma daaneel rek foofu par l'Assemblée nationale euh, le président de la République en posant l'acte le décret. Thierno, quand l'article 27 de le nombre et la durée du mandat article 103 ñëw fixer la clause d'éternité et à l'article 3 on nous dit la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses de ses de ses représentants et de l'exécutif comment on se retrouve dans tout ça est-ce que oui. non attends non non et de la souveraineté appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. jeex na exécutif ñu mm-hmm. la possibilité. Mm-hmm. aux députés. Mm-hmm. de réviser. des textes essentiels de notre de notre armada judiciaire. Et de l'autre côté, dans la même constitution, il y a l'article 103, il y a l'article 107. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'harmoniser C'est-à-dire on s'y perd. Parce que, d'ailleurs, j'ai entendu Abdoumou invoquer l'article 3 de la, de la Constitution pour justifier le fait que nous, nous modifier l'article 31 et euh, créer une prorogation ponctuelle et conjoncturelle euh, du mandat présidentiel. Oui, c'est très simple. Il n'y a pas de mmh. mélange. C'est très simple. xam nga quand dans une démocratie représentative mënuñu jël sénégalais yëpp dugal leen fenn pour ñu wax dafa am ñu ñuy tànn ñooñu ñooy député yi ñoo leen fay teewal xam nañ mode d'élection bu ñu leen di fale mais député yooyu dafa am ay loi yu bëri yu ñuy voté dafa am loi ordinaire mun nañ ko voté dafa am ay loi organique mun nañ ko voté dafa am loi constitutionnelle cest à suñu demee ba war a modifier la constitution loolu bokkul ak su dee yeneen loi yi la c'est différent parce que loo xamante ne dafa war a laal constitution bi c'est la charte fondamentale dafa am ay règles yuy war a mu tax moo tax ñu naan le trois cinquième des des des votants dafa am ay règles te la voie royale c'est le référendum en réalité voie buy gën a tax ñuy wax dëgg constitution c'est le référendum mais ñun on d'ailleurs affaire souveraineté sax y un débat sur ça parce que de plus en plus euh, soo demee assemblée dañ leen naan euh, le mandat impératif n'existe pas par contre ñi ñi xam ne dañuy voter par rapport à leur majorité par rapport à leur truc et cetera donc boo tax parfois il y a des euh, qui se disent est-ce que la majorité ne se déplace pas au niveau de la la souveraineté ne se déplace pas au niveau de la majorité qui parfois même incarné par le chef de l'exécutif mais loolu beneen débat mais li ma bëgg a wax foofu rek mooy bokkul souveraineté ñoom am nañ possibilité voter loi constitutionnelle c'est loolu amul demal ngi ñëw mais je pense que expliqué nañ ko fii amul est revenu sur ça jarul ñu siy sëriwaat par rapport ak décision bu conseil constitutionnel jël nee na le le conseil constitutionnel moo la njëkk a ne le pouvoir constituant moo ko njëkk a wax ko ne mun ngaa modifier da ko bind ah mun nga modifier mun nga waaye si yii nii mun naa si wax man parce que en réalité le conseil constitutionnel amul des pouvoirs ex amul pouvoir yoo xamante ne daf ko jël pour euh, ne ah moom de mën na def lii mën na def déedéet lu muy def pouvoir constitution bi si boppam moo ko dugal si constitution bi c'est-à-dire que as ñoom ñoo ñoom seen bopp ñoo dugal c'est-à-dire que la le référendum de 2016 moo dugal intangibilité bi mais conseil constitutionnel moom mooy préciser à travers une décision motivée na la no lii dugal nga ko ba pare donc mënoo koo jalgati donc je pense que foofu amul amul amul amul amul jaxase mais sànq li ma li ma doon wax sànq si mbirum euh, fu ñu jëm xam nga tey le conseil constitutionnel jàpp naa ne à peu près su waxee ne con affaire bi mënul am le cinq peut-être ñu bëri wax nañ ko am ah, bien que le conseil n'a pas été précis peut-être que c'est par rapport au fait que campagne bi li si des bëreetul peut-être mais dafa am article 31 bi wax naa la ko gis nga su ma ñëwaatee si li ma la wax si différent différentes lois yi article boobu et j'insiste sur ça kenn waru ko laal parce que dafa dugg ci clause d'éternité yi conseil constitutionnel à partir du moment où génn na décision boo xamante ne boole na ko su lee war a mën a tax soo ko laalee day laal une clause euh, d'éternité article boobu soo ko laalaatee it doon lay demee c'est clair maintenant wuute na ak article bu nekk dans le code électoral pour man acte bu nekk dans le code nit ñi mun nañu waxtaan euh, changer ko procédure d'urgence loolu mun na jàll facilement loolu pour man warul doon problème na l'essentiel na correspondre à la constitution nit ñi mun nañ si wax mais loo xamante ne ne c'est il y a une clause loolu encore une fois mënatoo ko laal moo tax ñu ne élection yi mënul am kii bii di ñëw mais waxtaan waxtaan je te dis une chose euh, Maïmouna président discours bu mu defoon ne dama bëggoon ñu waxtaan condition yooyu situation ba contexte ba bokkul ak contexte bi parce que bii c'est une con c'est un contexte qui vient après une décision du conseil constitutionnel. c'est-à-dire. le conseil constitutionnel dafa wax c'est vrai que euh, kii la wax nu mu encore les autorités compétentes bon bien entendu euh, le président c'est le chef de l'exécutif et tey. même su dee yóbbu nañ élection yi benn dafa am décret yoo xam ne président président moo jël décret donc pour fixer laa date pour convoquer le corps électoral il faut moom ay décret bien voilà donc président foofu day am taxawaay bu fa am mais conseil constitutionnel encore une fois. non est-ce que dafay fixer waat le dafay convoquer waat le corps électoral parce que le décret euh, nu mu le conseil a a a annulé. non le... donc le, le le décret de convocation du corps électoral reste en vigueur. non xam nga dafa am ñaari décret dafa am décret boo xam ne c'est l'article 63 L 63 alinéa 2 mooy décret boo xamante ne ne moom ngay fixer la date de l'élection mu am beneen décret boo xam ne su ma juumu L la. moom mooy convoquer le corps électoral. moom laa lay wax. voilà mais normalement sooy convoquer le corps électoral dafa war a am la date de l'élection su ma juumu naa ah, je suis pas catégorique voilà dafa war am la date de l'élection donc il faut nga jëlaat ñaari décret yooyu il faut nga jëlaat leen il faut nga jël décret buy fixer la date de l'élection jëlaat beneen décret buy convoqué électoral dans lequel décret tu mentionnes la date de l'élection parce que sooy convoqué nit. mais loolu ça nous sort du 2 avril. non muy décret kay décret kay nii ñuy waxee di mën na jël décret da ngay. non pour le respect des délais. non xam nga xam nga foofu laay waxee moo tax ma ne la. le pour man le 3. le 3 mars. Ouais, mais ça entre dans les délais du 30 du, du mm -hmm. de l'article le premier tour le 3 mars le deuxième tour le 17. ils une dizaine de jours 13 à 12 jours de, de campagne et puis ils auront peut-être euh, euh, voilà deux semaines non, pour vider pour, pour la période contentieuse non, euh, pour la proclamation des, des résultats non dama lay yombal en violant aussi le code électoral violent comment, comment? mais mais loolu ce sont des ajustements que le ah, président ah, peut, peut, peut faire avec les candidats non, le code électoral kan ba lan moo on mooy le dañu war a discuter xam nga parce que dañu koy xam nga am nga am na protocole additionnel euh, kii euh, CEDEAO. bay ne 6 mois avant élection waruñu changer. les règles du jeu sans pour autant amul autant défaut de consensus. consensus mooy lan lan mooy indi consensus. tu débat dialogue non non consensus mënatul am. Ah, on parle non non non non c'est-à-dire que euh, 30 euh, jours au moins boobu c'est déjà prévu par l'article 31 donc les délais prévoir nañ ko si muy euh, deuxième tour beeg recours beeg yooyu c'est prévu avant el président di di dem donc c'est clair maintenant. Euh, fii ñu toll mbirum débat bi mbirum waxtaan bi mais ban consensus moo mën a am si mbir imaginer rek ñu génne consultation et Amadou a raison parce que consultation lay def waxul day def dialogue mais image la ñu ne dialogue lay def mais il y a tellement d'intérêts divergents dans cette affaire-là. Hmm. mënoo fi am consensus. le dialogue va porter. sur la tenue de l'élection le démarrage de la campagne. Non, le deuxième tour la période contentieuse. la proclamation des résultats. waxuñu loolu dialogue bu bi lañ bëgg. voilà voilà pour lui permettre de rester. léegi nag léegi nag xam nga lan laa bëggoon. Ah, xam nga waaw je précise je précise xam nga li ma bëgg a wax foofu. mais conseil dafa ne d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. xam nga xam nga tey ah. mais c'est ça c'est-à-dire que c'est-à-dire que le conseil constitutionnel xam nga ma damay dégg boobu ba léegi ñu ne conseil constitutionnel yóbbu na gars yi waxtaan le conseil constitutionnel dafa ana dafa joxe décision par rapport à la au droit par rapport ak yoon si le le le droit la joxe décision maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy euh, fu mu toll nii autorité compétente la adressé ñoom la mm-hmm. waxal mm-hmm. waxul ay ngeen dem waxtaan de ngeen dem waxtaan gaay yi ñoo ko si ñàmbaas mm-hmm. bokk si de. alors ñoom léegi dañ bëgg wax wax ne ne c'est une occasion ñu ibbi yaatal def ndëpp jaaru ndëpp non ndëpp xaju fi parce que yow soo bëggee ne da ngay woo recalé yi. am na ñoo xam seen yoon nekkul ci mais juste mais loolu la ñuy wax ñoom. ñoom loolu la ñuy wax. dañ non est-ce la ñu wax. Eh, waaw nee na léegi rëkkale <laughs> yi seen yoon nekk si. waaw soit simplement c'est notre propos. waaw non <laughs> loolu kay dafa maintenir la la la liste. c'est ça waxul waxul rëkkale. voilà léegi waaw justement. juste très bien si on est d'accord sur ça ça veut dire que fu mu toll nii. su dee consultation day am ñan la war a consulter candidat yi la war ah, mais mais mais sur le cas et sur donc day dem. le cas Rose non nu mu nekkee ah ah Thierno. non après après dina si tontu. <laughs> mais mais dama mais dama bëgg wax rek ne. dama bëgg a de façon conseil constitutionnel y a des voies a d'autres voies de recours après bi. yemul rek si voie de recours bi yemul si si ba ñu ba Thierno Alassane bindee yemul si boobu am na yeneen voie de recours yu ñëw mais ji nga lor l'élection est organisée ñi nga dans ce pays dañu xam élection étape bu ne prévoir nañ si si war a am on a voulu tout chambouler. gëmloo nit ñi que suñ ko deful léegi lépp yàqu lépp jaxasoo adduna bi day tukki alors qu'il y a rien. on a eu on a eu à peu près la même situation en 2019. Oui. et ça n'a pas empêché l'élection de se tenir. Oui. mais il y a eu des régalés pire c'est-à-dire que ils ont non c'est-à-dire que ils ont pris une décision. maintenant c'est maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que aujourd'hui président Macky Sall dafa apporter benn tort bu rëy à la démocratie sénégalaise c'est ça la vérité. parce que tey c'est ça. mais mais mais, mais, mais le conseil a refermé la la la la plaie. oui mais écoute ce sont euh, c'est c'est l'exécutif c'est c'est le législatif c'est c'est le judiciaire. mais pourquoi on se débat dans les solutions pourquoi tey. parce que là les difficultés ne font pas commencer. non okay. mais, mais c'est euh, ça c'est-à-dire que on va aller vers des difficultés. on va aller vers des difficultés su dee respecté wuñu lu conseil conseil du wax. on va aller vers des difficultés te te nii ñuy waxee man j'ai écouté tout le monde mm-hmm. ils ont les on a l'impression qu'ils ont le temps mm. parce que meilleur délai boobu pour ñoom mooy nañu xool rek ba affaire bi jekku ñu soog ko def mm-hmm. tu as l'impression non j'ai l'impression c'est une appréciation tu as cette impression alors que ce n'est pas le cas man dama jàpp je l'ai dit l'autre jour et je le dis et c'est pas méchant je dis que président Macky Sall euh, il faut que ñu travailler ci état d'esprit bi c'est important. pour quoi c'est un président sortant c'est un président sortant il part il, il peut faire un bilan et tout ça ku bëgg a apprécier et tout ça kenn mënul wax euh, bon na wala lii et cetera le problème n'est pas là c'est un président sortant cest que toutes les initiatives yu muy jël boobu ba léegi du moom du rôle am mm-hmm. moom benn initiative la war a jël mooy toog parfumé wu. xaar successeur mu ñëw mu seere ko la may. parce que vous pensez que il redoute. Euh, oui, le avril. quand il va non, non, quitter. xam nga xam nga dama lay jox benn exemple. moo tax nga naan nañ nañ nañ ko préparer psychologiquement dama lay jox bu ndaw. c' une chose que j'ai noté conseil des ministres bii passé dama nga lire ko. on nous de crise dans ce pays y' a pas un seul mot sur la crise ni sur les morts ni sur rien du tout rien même pas sur le dialogue sax un seul mot. on nous parle de way inauguré nañ lii war nañu lii war nañu lële. ma daaneel rek ma je le. a la crise. c'est c'est la volonté d'aller vers l'apaisement. non non non non ma ñëw ci Abba waaw li ma bëgg wax rek foofu mooy lu ñu waxoon ci ay crise moo fi am situation bi nu mu mel. Euh, et cetera ñoom si seen bopp ñoo dem démentir ko déglu naa ñu bari ñu def interview ils ont di il crise dans ce pays. kenn sentirul une crise dans ce pays fii suñ fi xuloo woon si plateau bi c'est dans le cadre de la mais la démocratie moo laaj ñu ñuy di d'accord uma d'accord naa c'est dans tous les pays du monde est-ce que léegi réew mi suñu waxee kii dafa mel ni dañ dafa sàcc kii dafa mel ni dafa corrompre rek ñu on arrête tout mais un arrêt euh, il y a eu des manifestations il y a eu des ah, morts il y a eu des répercussions économiques ah après après le décret du président Macky Sall. Mm-hmm. Mm-hmm. donc il est responsable de cette situation. c'est ça la vérité Maïmouna amatul leneen lu ñu mën a wax par rapport à cette question.